président man am naa benn question si vous le permettez. Euh, parce que ku yàgg di déglu sa argumentaire. mel na ni yow mel na ni maîtriser nga askan wi li ñuy dund jafe-jafe yi ak problème yi am ci dëkk bi. léegi nag man ma bëggoon a xam au soir du 24 boo jotee ci réew mi yan ñooy décision yi ngay njëkk a jël pour soulager les Sénégalais. ah journaliste non non non non dañoo bëgg a doon baax ah xam nga réew mel ni Sénégal dama ne réew mi gën ma émission foo làmb rek métier mel noonu ku ñëw ne la lii laay def daf lay cest à dafa am ñun li ñuy liggéey ci programme bi soobee yàlla après le 20 bu ñu valider définitivement candidature yi. dañ koy génne dañ ko booleeg chronogramme lépp lu ñu ne dañ koy def dañu wax naka lañ koy defee fan la ñuy jëlee luñ koy defee ak ci ban délai lañ koy def parce que loolu. soo nee rek damay def da falu rek toog. def six mois ñu ne la ah moo newoon dina def lii keneen ne moo newoon dina def lii. comme jëmm lañ lay nattee dafa war a am chronogramme boo xam di nga ne ci anam bi ak ci tere bi natt. Hmm. bu loolu weesoo dinañu génne aussi des actions prioritaires waaye li leer ba leer mënuma la leen yéeg nii la am naa ci sama xalaat mais damay liggéey ay nit mais ñaar ba ñetti fànn yi dina am des mesures urgentes bu ci njëkk mooy les li nga xam ne ko jublu ci ñun ñu moomaat suñu bopp loolu moom dinañ ci teel ni ñu jëlee suñu alalu réew pasar pasaree ko ba nekkul suñu réew suñu loxo loolu moom ci mesure yi njëkk jël la pour alal gi dellu si réew parce que balaa nga naan naam ne fa cest à boo amul les moyens d'agir ak programme bi nu mu baax baax doo agir kon nit ñi dañ leen waat ñëw toog ah lii de ñoo ko moom te yow xam nga ni ñi la ko signal anam gi ñu ko signalee baaxul ci ñun mënuñoo moom suñu alal ba pare yow nga am ci nga am ci juróom-ñeenti fukk man ma am ci fukk fukk loolu mënul nekk il faut ñu toog ñu waxtaan suñu waxtaan yi déggoo ci jàmm wasalaam suñu déggoon ci jàmm wax dëgg yàlla nag man duma ñàkk fula ba nga ñëw fekk ma sama réew nangu sama dinaa ko dinaa dinaa ko nationaliser sax seen dinaa assumer boobu dina am ay mesures ci fanam ñaareel bi dina jëm ci lépp lu luy bonne gouvernance parce que ñu xew ci réew doy na war te mënuñu ko bàyyi boo gisee nag gars yi di galgal fi mu toll nii ñoom xam nañu loolu dina am ay mesures yu ciy jël ci lu gaaw a gaaw a gaaw mooy bonne gouvernance ak ni ñu yore muy ñi ko yoroon ba jóge fi ak ni ñu ko yoree waaye mun ñun ñi nag ñun ñi tamit bokk na ci gaz yi nga xam ne il faut ñu jox ko Sénégalais ay fonds politique nga jël 10 milliards jox ko benn nit ci loo xam ne suñu ndémpoo la li ñuy fay ne ko yaa ko moom la neex defar bu la neexee dugalal ci am am néeg taal kenn du la laaj compte loolu dafa war a jeex ci réew mi te loolu dañ jël ay mesures gaaw jaarale ko assemblée def loi de finance rectificative ci loi de finance 2019 ne leen lii mënatul wéy ñetteel série bi moom day jëm ci réforme institutionnelle dama ne gis nga combat bi gën a métti combat économique ndax combat économique kenn ko gagné ci benn at kenn ko gagné ci juróomi at mais mun nga teg des gens yoo xam ne falaal réew mi di jóge départ mais affaire institution lu mun a gaaw la donc réforme institutionnelle yi nga xam ne ñun wax nañu ne président de la république a na suñu jiite ne corps de contrôle yi waratuñu am rapport wala ne waratuñu nekk. ci su ci ci euh, ordre président de la république wala ci ordre ministre euh, de la justice mm. mais euh, assemblée nationale il faut ñu libérer ko carrément juste même su président la waratul nekk président du du conseil supérieur de la magistrature ministre de la justice waratu ko siéger ak yeneen ak yeneen nomination bi mu am ci citoyen yi

parce que combat économique moo lay permettre nga créer une vraie véritable économie alalu réew mi des ci réew mi léegi nag alalu réew mi bu fi nekkee ñu doo ko xool naka lañ koy redistribuer de manière juste ba Sénégal bu ne gis ci boppam moo tax yenn proposition yi ma def ci sama livre yéen ñii di wax yéen ñi nekk ci yëpp mais amuleen protection sociale peut-être ñenn am nañ ko xaw ma am ngeen ci presque sécurité sociale leneen mais am nga ko mais musiba la mënoo liggéey ba am at bi nga am yow te tey soo arrêté woon dem toog sa kër doo Sénégal y a cent mille personnes quatre cent mille personnes fonctionnaires publics ak privés ñoo am protection sociale couverture euh, kii maladie accident de travail assurance chômage ak euh, ak ak ak retraite mais kuy liggéey rek ci mu réew war nga ko